pour man dañoo yàkkamti rek parce que candidature yi balaa ñu ko daan xam toujours gars yi jàll ci état yi dafa am ay étape ah. déclaration <laughs> d'intention de candidature ak les candidatures bokku la ah. tey tu ay une foultitude de déclarations y en aura d'autres qui vont déclarer encore il est arrivé fii élection ay 19 xaw ma personne déclaré fii xaw hmm. mais voilà mais li ma leen mën a wax insha allah hmm. Benno Bokk Yaakaar aura un candidat instance yi bu jotee dinañ wax kan lay doon te ka muy doon incha allah mooy gagné te ñun si suñu. calcul mooy gagné euh, c'est-à-dire benn mooy gagné élection présidentielle. au premier tour au premier tour. vous savez vous savez quoi. xam nga dafa ñu nga xam ne dañu nekk ci parlotte. ñun on a aujourd'hui un président de la République qui travaille donc qui va avoir un bilan boo xam ne bilan wu Benno Bokk Yaakaar la. d'accord qui sera oui, ce sera le bilan de Benno Bokk Yaakaar si d'aventure le président disait que ni moom il était candidat bu ko neexee rien n'empêche que mu nekk candidat ah. mais baal ma ñëw baal ma ñëw <laughs> rien n'empêche mu eh, nekk candidat le texte le texte ne ne ne parle pas de candidat gis nga article boobu ñuy wax mhm. lan la ñuy wax le mandat du président de la République et de cinq ans point nul ne peut plus de deux mandats consécutifs point dafa mel ni nga ne da ngay di julli rek allahu akbar nga ne da ngay tëb Fatiha bàyyi ma ma ñëw laisse-moi te dire non laisse-moi te dire <laughs> l'interprétation bi gars yi di def non Assane. Eh, non non xam li nga wax nii rek balaa ñoo jàll. balaa ci li nga wax nii laa euh, nul ne peut faire plus de. deux mandats consécutifs. on n'a pas précisé la durée des mandats. non non xam nga dafa am que ça soit cinq ans ou sept ans mais là le président il est à son deuxième a déjà fait deux mandats consécutifs. il en a fini alors. xam nga man j'ai été député. Mm-hmm. liy bind matière biy bind texte ça s'appelle la légistique. Mm-hmm. dafa lay wax ni ngay liire texte parce que ñun député nag ñooy député yi ñooy voté texte mhm. ñun dañ koo jàng nag professeur Babacar Gueye moo ñu ko jàngal ak mhm. professeur Ousmane Kouma d'accord la l'article munoo ko dissocier munoo dissocier les alinéas dama la koy firndeel feneen tey da ngay julli nga ni da ngay jàng fatiha ak saar nga ni noonu man fatiha bi bokku ci sa allahu akbar rek nga ni xulu allahu ahad amoo julli faatiya par force loo ciy teg nga teg ko ci bu la neexee nga teg ci saar bu la neexee nga teg ci aaya c'est le cas l'article 27 dit le mandat du président de la République est de cinq ans point nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs de cinq ans parce que loolu mooy art non loolu mooy article bi man article bi laa wax de article bi loolu la wax benn deuxièmement dama leen di wax bi ñuy def référendum may ma may ma gis nga bi ñuy def référendum en 2016 le conseil constitutionnel s'est clairement prononcé sur cette question. Macky Sall dafa nax gars yi foofu. loolu de xam nga man conseil constitutionnel laa la wax <laughs> je te de conseil constitutionnel qui est l'arbitre électoral. bañ ko ba ko président laajee lii ma bëgg a def loo ci xalaat daf ko ne. sa mandat bii nga xam ne sept ans la mënoo ko cee boole. ah waaw. Mhm. et ça c' une décision gaa yi xam nañ ko. waaw léegi man bàyyi ma ma ñëw bàyyi ma ma yeggali waaw bàyyi ma ma yeggali léegi mandat boobu bokk ci mandat boobu bokk ci. ah d' conseil constitutionnel li ma laa nii 2016 laa la wax de avant référendum bi conseil constitutionnel nee na ko mandat bi bokk ci dafa mel ni Adja Assou nga dem aéroport nga jënd billet jëm Paris avion bi yegg Mauritanie wala Maroc nga ni da ngay wàcc munoo wàcc. parce que les Sénégalais t'ont donné un ticket pour Paris. <laughs> mais non c'est pas facile. non ce pas facile. non c'est pas léger non attendez non Babou. li may wax nii c'est du sérieux li may wax nii man man fu ma de. li may wax c'est du sérieux man jam en fonction parce que li may wax mënoo ko tege. mais euh, mais kaddu président kaddu président daal euh, lu sacré la wala nekkul lu sacré. dégluwoo démb Maître Moussa. non dama laaj dégluwoo est non Moussa bokk si yàlla yàlla far. non du far. dama la loo non li mu wax droit la xam nga lan la wax. dafa ne ba ñuy def recours en 2012 dañoo dugaloon benn CD boo xam ne dañoo enregistré woon Abdoulaye Wade muy wax ci waxi mandat conseil constitutionnel def si tontu daf ne kaddu président de la république ak lu mu am am am solo tant que nekkul loi du dara. d'accord conseil constitutionnel bi nga xam ne ñun ñëpp moom la ñuy déglu. parce que tey dinaa la wax nag gis nga candidat yi bu ñuy yóbbu seen parrainage du nga koy indi 7FM. 7TV ah. du nga koy yóbbu TFM. ñu ko RFI conseil constitutionnel lañ koy yóbbu.